bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiyaai mursalin muhammadin ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain bokki internetu Kabir TV noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara seen jotaayu waxtaan wi ñu tuddee islam et moo des waat ak yéen tey ki jotaay waxtaan yi nga xam ni mi ngi ko amee ay bés bu ne ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit maas yi ci waxukaay mbokk yi tey nag tom bi nga xam ne noo ko jagleel presse muy mbooleem xeeti yéene kaayu tasukaayu xibaar moo xam ay xët la ñu dagale ko tuddee ko journal moo xam rajo la moo xam télévision la ak léegi nii jumtuwaay yu xalaale yu bees yi nga xam ni moom la ñuy wax internet bi ay sit juddu ci site yi ay télévision lañu ñuy wax télévision ci poche wala presse écrite en ligne lan ak nan la presse war a taxawee li ci jëkkoon moo doon yëgle maanaam bi presque njëkkee am ci dix-septième siècle jëm dix la tàmbali am ay annonce rek la ay annonce wut ay waxkat ci ay bërëb am yuñ doon jaay doon wane ak yu ne mel moo taxoon presse njëkk am feeñal daal jëm ci publicité annonce laata presse écrite di am nag nekkoon na jumtuwaay woo xam ne dañ ko daan jëfandikoo ci jamonoy guerre mooy xeex yooyu daan am ci àdduna moom presse nekkoon benn jumtuwaay muy outil de propagande bu amoon doole jamonoy dox nag ba ñu egg ci siècle bu mujj yi vingtième vingt et unième siècle mu am beneen taxawin ak neneen noo xam ni moom presse taxawee na ko ña cay liggéey nag ñooy ña ko jàng ndax xam-xam la am ay bërëb yu koy jàngalee am ñu cay am ñoo xam ñu demee ba am béréb am bac wala lijaasa dem jàngi ko wala formation ci leneen mu nekk liggéey bu am solo ndax yëgle lu baax la lan mooy njàng ma mooy recueillir maanaam taataan wala am xibaar ci nangam ba nangam. nga vérifier ko xool ko déglu sa bopp maanaam da ngay déglu sa bopp d'abord waaw dégloo sa bopp xibaar bi boo ko boo ci jógee nag nga solol ko mbubb jëmmal ko xibaar day mel ni nit da koy solal jëmmal ko solol jëmmal nag mooy commenter wax ca loole la nga ca xam ngir mën leen a jébbal askan wi waaye itam balaa ngay tasaare xibaar boobu am na code bu ci ne nga war koo respecté ndax code ba jàngu ko ci école bi yow taskatu xibaar mooy déontologie ngeen koy dégg ak éthique léeg-léeg nga dégg koy wax déontologie éthique fekk ni amaan amaana jàngu ko wala xamul baat ba muy tekki léegi soo mu toog télévision di wax lu mel noonu fekk ni boo xamulee baat ba la muy tekki yow ndax boo xamee baat ba la muy tekki moom rek moo a tax nga jox cër lii ngay def lu mu doon déontologie dañu ni bu doon presse jëmm nit déontologie mooy wuru bi mooy wuru l'âme l'âme de la presse mooy déontologie éthique mooy teggin teggin ak yar gi nga xam ne moo nekk ci xibaar gi ak sa jëmm yow bopp d'abord waaw éthique waaw mooy moral waaw éthique mooy tax ngay def ci sa bopp sa xel yow ak taskatu xibaar bi ndax li waxu na am déet ndax lii waxu na nan lay waxe wax ji nan lay fexe wax wax ji ba jéem ko segg xool ko loolu mooy éthique éthique waaw ndax loolu ay teggin am na wax yoo xam ni euh, amaana boo ko waxee rek musiba am ndax wolof yi dañ naan way guy dëpp daal kenn du ko way ci tefes am ñoo xam ne nag yooyu ñaar ñu wax ci lañu liggéey gannaaw ba nu ko jàngee am ci seen sutura am ci seen teraanga am ci lépp ñëpp naw leen ci kaw suuf muy jox cër lañu ñu ndax jox cër la nga jàng mooy dooleel loolu déontologie bi muy ruu laam waaw ruu li nga jàng éthique wi mooy li ma wax léegi rek bu ko defee ki ko mën na bu yëkkatee kàddu ñëpp déglu ko ndax kii kat la muy wax xam na ko mesuré na lépp nag ci wax ji mesuré na lépp muy avantage yu ci am ak conséquence yi nga xam ni moom la kàddoom yii war a mën a jural askan wi Sénégal nag nekkoon na réew moo xam ni ay journaliste yu mag a mag a mag a mag a mag ñun bu gënee nekk si ndaw ay tuutànk daanaka lépp loo xam jàngoon nañu ko ci tubaab wala di góorgóorlu bu journal parlé wala journal télévisé boobu nag mën nañu ni rajo bariwul waaye amoon na yoon amoon na droit ñi doon def xam-xam boobu nekkoon ay nit yu correct waaw ay nit yoo xam ne ay référence doon woon ba tey jii sax ndax ñoom ñoo ñu doon wax dañoo amoon ay référence ci ñu leen jiitu woon waaw nekkoon ci rajo Sénégal ak yeneen rajo dans le monde waaye ñun léegi gis nga euh, repères yi référence yi nit ñu baax ki doon am ci wàllu journalisme lu ci ëpp màbb na ba tax na léegi nag nous avons une presse de désinformation waaw sunu presse bi lu ëpp ci li ñuy xibaar daanaka c'est de la désinformation loolu nag di musiba ndax information xibaar dañuy pose toujours la question info u intox xool leen léegi exemple bu récent rek bu récent am na benn application ci internet bi du ma tudd turam ngir bañ a indi problème moom ci fukki publication juróom-ñeent yi ak genn wàll yëpp amul sit la boo xam ne ñoo ngi cay yeeku di ci lekk am boroom di dunde loolu di dunde musiba lay boobu waaw am lu ñu xibaar for ko wax ko ngir am ay vue audience audimat audience audimat baax na baaxul ku dugg nga am fifteen wala dërëm dërëm boobu nag ëllëg mën na indi problème ca béréb yu tàngee du jëm waaye mën na taal Sénégal lakk réew mi ba réew mi nekk dóom ci xibaar intox waaw info ou intox te ku ne xam na ni métier la moo xam ni euh, islam mbokk yi ku ne xam na ni euh, boo demee ci sóotu ujuraat ci verset six juróom-benneelu laaye bi laaye boobu jul bu ne war na ko jàng yéen ñii taskatu xibaar yi ndax dafa am lu xew foofu benn ay bu borom bi di moytu njukaloo jullit ñi ngir ñuy bañ a ci loo xam ni bu ñu ko déggee te saytuwuñu ko wasaare ko ci nit ñi mën na jural askan wi ay regret ci sa bopp waaye itam nga jaxasoo ko nit àdduna dogoo ko moom te manque d'information parce que yow alxuraan wax naak yow depuis le septième siècle ca sóotu ujuraat ndax dafa amoon lu xewoon saa bu njuul bi daan ci ñëw ci laaye boobu ndax boroom baa ngi wax ni yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi nabayin فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين xool leen laay boobu c'était au septième siècle neuvième année de l'hégire maanaam juróom-ñeenteelu atu gàddaay bi nga xam ne benn at rek lañ ci teg yonent bi wuyu ci la laay boobu wàcc sot ucuraat mu ne ay yow yéen ay yéen way gëm ñi bu leen faasiix yàqkat indi lee aw xibaar da ngeen ko seetlu saytu ko seet ko bu baax de peur que par inadvertance maanaam ci ñàkk saytu li ngay def nga porter préjudice ñeneen xoolal septième siècle ba pare itam mu yóbbule ci ay regret ay regret waaw xool leen léeg-léeg ñu nekk ci daanaka situation bi dund Sénégal actuellement nii lu ëpp ci lu taal Sénégal division d'information yii ñuy am ci intox am suñu ay mbokk suñu ay xarit naataangoo journaliste ñu leen di alpage di leen yóbbu ci ay biir leen fa denc euh, ndax amana wax luñu ñu wa lu lu ñu war a wax wala ñoom ñu jàkk jàppe ne war nañu ko wax nekkate ñoom saytuwunu ci wàllu déontologie éthique ndax lii war a si waxam déet yoon am fu mu leen jaar jàppaleen te nga waroon xëy dem ñibbi liggéey wàcc dem ñibbi am information tas ko waaye nag ndeysaan gis nga nattu du euh, yem ci boppi borom surtout musiba wu mel nii nga xam ni lu bari ci liy takk ci ci ci ci Sénégal fii taskatu xibaar yi dañ ci jouer un rôle prépondérant loolu ñëpp xam nañ ko ndax journaliste bi fii au Sénégal euh, li fi nekk ñëpp xam nañ ko bu nguur gi itam deful li mu war a def ci Sénégal teg tegu fu mu war a tegu am nga droit en tant que Euh, citoyen sénégalais am noo euh, jéem a xeexi système bi waaye sa métier mi ngay def yow donte da ngay tas xibaar góorgóorlu bay informer juste et vrai am loo xam ni itam amaana boo ko waxee dëkk bi brasé dugg ci daay nga xam nan ngay fonctionner suñu mbokk Pape Ndiaye ñu ngi koy nuyu di koy ñaanal yàlla subhanahu wa béréb yooyu mu nekk suñu borom jëlee ko fa et ak ñeneen ñoo xam ni ñoom ñi ci contrôle judiciaire euh, daal l'exercice de leur fonction toll ci jamono joo xam ne nag yooyu dafa xewi euh, ndax ki nga ngalab ne bu mu bu mu wax fii mbedd mi grand place yi yeneen chaînes yi bari yi nga xam kenn mënu leen a contrôlé te dëkk guddeeg bëccëg te yooyu wóorul waaye li am solo daal mooy jullit nga xam li muy wax xam li muy def am rétention d'information ndax am na suus ndax yàlla wax na ko ci alquran ne ko fexeel ba boo amee xibaar na ko xool ndax keroog boobu nga xam ni laay boobu wàcc na dafa fu mu jóge woon ndax am na ko yonent bi yónni woon sallallahu alayhi wasallam ngir mu dem def collecte des impôts quelque part ci arab yi ba mu demee ñu am lu ñu ko fa accueillir am lu fa xew mu mer euh, am mu fa jële daal neexu ko muy waaxu di si rasulillahi jibril wàcce aaya ni ko attention te ki demoon jëli xibaar ba du faasix mais acte bu mu waroon def keroog bu fekkoon ni ñëw na te aaye ba ñëwul amaana sax guerre moo tax borom bi ne ko in jaakum fa bi na bayin fa tabayyanu an tusibu xawman bi jaalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin seen bokk daara maa si leen joxukaay jox dee incha allah si leen jotaay waxtaan wa axiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi